am amee kenn du mën a jaay ci coggalum jaam jamono yi nga xam ne xar ak bëy mi ngi am coggal kenn mën a jekki-jekki rek jënd ak coggal noonu faaw ñu teqale ko benn benn ndax liñ ko leerale woon bu dee jaam ya jaam yi dañuy wuute lool bu dee xar yaag bëy yaag nag yaag gëléem ya ci gétt ga dañuy wuute lool lool loolu duñ ko nangoo jaay ci ab jal rek faaw ñu seetlu ko teqale ko benn benn bu dee ñi nga xam ne moom la fëgg jaay di amee nag nga xam ne xeeti tiise yi ay yére la waaye léeg-léeg morse day bare bare bari ba nga xam ne du neex a wàññi benn benn di ko jaay mel na ne kon mënees naa jekki-jekki jaay la balu fëgg jaay la cay aay daal mooy niñ koy defee nga xam ne doo ko tàjj da ngay jënd rek boo demee léeg-léeg mu xéewale muy sa njariñ léeg-léeg mu ñàkk solo lool yamaay lool loolu daal moo ci xaw day waar waaye bu fekkoon des na ko tas ba gis ko xam ne lii neexut a wàññi benn benn ñu waxaale ba juboo ci njëg mel ne ne kon moom yoon dana ko nangu ndax loolu ndax loolu dafa naqaree wàññi morso ya benn benn waaye bu doon ay tiisee basee moom nga xam ne yow mën naa wàññi ay benn benn kooku faaw ñu wàññi ko moo tax mu teg ci wala ma du caagéen la nga xam ne yum kin dana jàppandi xaddufu ak wàññeem bila mashaqat jul ab coono jusaafan mi ab jal loolu day dellu ci lépp lu ñuy jaay di ko wàññi lépp lu ñuy jaay di ko wàññi te nga xam ne loolee moom yomb naa wàññi ba xam nu mu toll rek faaw nañ ko wàññi ba xam nu mu toll door koo jaay waaye bu njekki-jekki rek jaay ko global bu dee loo xam ne nag moom neexut a wàññi ndax wàññi gi day indi ab coono nag waaw su boobaa kon nees na ko jaay ab jal ci kaw sart yi nga xam ne moom lañ joxe woon léegi wa man baax ku jaay ndax lan ay tàndarma xadd ubbirat yoo xam ne góor a leef na leen sa samaruha kon meññetum tàndarma ye lil baaxi ñeel na aji jaay ja illaa an yashtaritahu ndare bu da koo sartaale almubutaahu aji jënd ja nee na boo dee jënd ay garabi tàndarma te fekk mu meññ te meññet ma góoral nañ ko góoral googu nag moom bu dee ci tàndarma mooy dañuy fab ca tuur tuur yi tàndarma gu góor ga def ko ca meññet ma dana ko tee ruus loolu mooy góoral ga léegi nag boo dee jënd ay taati garabi tàndarma te fekk mu meññ te góoral ko boo bëggee meññet ma bokk ci taat ya ngay jënd da nga koy leeral ne ko man ka jënduma taati kese yi damay jëndaale meññet mi loolu lay tax bu ngeen waxaalee ba juboo nga moom yaar yëpp muy taat ya ak meññet ma waaye bu fekkee leeraloo loolu dañuy jàpp ne taat yi kese la la jaay waaye meññet ma moom mi doon jaay moo ko moom wa kazalika naka noonee xëyruha lu bokkut ak xeeti tàndarma mi ne ci maar yi ci meññet yi mboolem yi meññ yépp rek noonu la su fekkee xas nañ ko góoral soo bëggee meññet ma bokk ca la meññ mooy jëmm ja meññ mi garab ga da ngay leeral ne meññet mi ci la jënduma garab yi kese yi waaye bu fekkee leeraloo ko dañuy jàpp ne dañ laa jaay taati kese yi waaye meññet ma kii jaay moo ko moom waaye nag góoralu lu bokkut ak tàndarma daa wuuteeg góoral tàndarma say boo jàpp takk-takk bi mooy lépp lu bokkut ak tàndarma ak góoralam mooy meññet ma fis ba nga xam ne boo nee jàkk rek jàkkaarloo meññet ma xàmmee ko xob ya ñu teqalikoo loolu bu amee rek muy darkase muy mango muy dimb muy leneen daal su meññee meññ koo xam ne boo nee jàkk jàkkaarloo meññet ma xaman koo xam ne bu baax mu teqalikoo xob ya su boobaa loolu góoral nañ ko soo bëggee ci bi ngay jënd moom yaar yépp garab yaag meññet ma da ngay leeral ne jënduma garab yi kese meññet mi itam ci la su fekkee nag moom meññet ma nekkul lu fés ba boo xoolee jàkkaarloog moom kon moom boo jekkee jekki jënd garab yi itam da ngay moomaale meññet ma doonte sartaali woo ko ca woon wal ibaaru baatu ibaar nag at tadkiiru moo di ak góoral xad ubbirat jéemu la wax day baat bu xaw a jafe ci làngu arab mun naa la nag boo déggee baatu ibaar boobu wala xat ubbirat ji nga dégg léegi ak góoral lañ ci jublu loolu lay firi wa ibaaru zarhi góoralu mbay xuroo jufoo moo di génnam nga minal ard ci suuf xeetu mbay nag moom mel ne suunaag saañoog mboq ak gerte yooyu moom booy jënd suuf fekk ñu faraasu ca mbaa ñu ji ca te saxagut ndegam saxagul ba génn ci biti rek day jàpp ne kon kenn góoralu ko boo jëndee suuf sa rek lañ faraasu woon ci biir mbaa lañ ca jiiti saxagut dal nga koy moomaale donte néew woon day jëndaale li nga ci ji mbaa li nga ci faraasu waaye ndegam moom génnagul saxagul ba génn rek booy jënd suuf sa daal di moomaale la nekkan ci biir suuf sa te saxagul ba génn waaye nag ak góora la mooy loolee sax ba génn ne de xeetu mbay yooyu moom bu xasee sax ba génn ci bit rek boo bëggee mbay mu bokk ca da nga koy leeral ne ko jënduma suufus kese damay jëndaale li nga ci ji ba mu sax waaye su fekkee leeraloo loolu dañuy jàpp ne dalaa jaay suufus kese waaye loolee ci sax moom moo ko moom waman baaxa ku jaay xabdan ab jaam wala xoo te fekk mu ñeel ko maalul alal fa maalu xoo kon alalam ja lil baaxi ñeel na aji jaay ja illa an yashtaritahu ndare ba da koo sartaale almubtaaxu aji jënd ja yooyu jamono moom jaam daa bari woon te bari àtte mu ne nag bu ñu la dee jaayub jaam te fekk maam alal soo bëggee alalam bokk ca danga koy wax ne ko jënd mu jaamu kese damay jëndaale alalam ba ngeen juboo ca bu fekkee waxaale woo ci loolu bu la jaayee ba noppi jaam ba kese ngay moom ak yére yu lëggéeyu kaayam waaye lu bokk ci loolu ci alalam moom doon jaay moom yi moomoon jaam bi di ko jaay moo koy moom wala ba asaayu bi shira image jënd la nga xam ne fii indi li nekk na ci mbuus xal barnaami ji ci kaw mbind ma mooy ci kaw programme ba bi sifatin ci aw melo maaloo mat wuri wuñu xam daañu nangu lu ñu denc ci mbuus mbaa lu ñu kaste ci buwaat rek ñu wax na mel rek nga jënd ko ci kaw noona te kenn du ko tàjji boo ko tàjjee tam mel noona moom doo sañ a xàjj boo ko tàjjee te melul noona nag bu la neexee wéyal njënd ma bu la neexee bàyyi wax na bari na ci garab yi tubaab yi garab yi ci bare man lu bari ci garab yi tubaab yi rek seen liggéey moom day nekk ci boîte loo xam ne moo koy ëmb ñu bind ci kaw ne nangam moo ci nekk mbaa kii jaay na nangam ma ci nekk gën ci àll déggoo ci nañ ko waxee mbaa nañ ko bindee nag ngir waxaale bu juboo nga fay tam mel noonu moom doo sañ a xàcc waaye nag su melul noonu bu la nee xàcc bu la nee xeweel yow mi doon jënd wala yajuusul dagan shiraawu saw bin jënd malaan laa yun sharu moom deefu ko tàllal wala yu safu te deefu ko melal dañu nangu ngeen jaayante tissu boo xam ne xamuleen nu mel dëgg-dëgg dañ ko teg noonu rek ngir waxaale ba juboo kooku jënd ko déedéet dañoo bëgg ñu xam li ñuy jaay dañ koy tàllal ba nga xam ko xam na mel aw fii lay wala ci ak guddi mbodri mi ngi koy ajjulandam laa yetta am malaani yi nga xam duñ ko seetantal wala yaarifaani te duñu xam maa la nga xam ne fii nekk na ci moom daa wax rek guddi gu lëndëm waaye moo guddi gu leer ñooyamoo maanaam guddi moom dañuy bañ ku ci jaayante loo xam ne moom miy jaay mbaa moom muy jënd am na ci kooku xamul mu leer mi ñàkk leer a ci yam bu fekkee ne gisal nañ ko nag jëkk njëkk guddi gi ñëw moom mën nañu koy jaayante ci guddi gi waaye loo xam ne day biir guddi ñu koy jaayante dara mën na caa am loo xam duñ ko xam ñoom ñaar mbaa ki jënd moom du ko xam di nangu ko jaayante ci guddi nañ bàyyi ba bëccëg ba mu leer léegi mu ci tegit ne wa kazalika naka noonee at daabatu daaba ja fii lay leen ci guddi moom la ñu koy ajandam noonu la daa wax daaba rek waaye xar ak bëy yëpp a ci yem ak ganaar yëpp a ci yem lu ñuy jaay daal ci guddi gu lëndëm moom dees ko nangu ndax duñ xam na mel dëgg-dëgg bu doon guddi gu leeri dóor nañ bàyyi bu bëccëg rek ba fekkoon ñu gisoon ko naka jekk ba xam ko wala yosee bu du waxaale ahadun kenn xalaa sababi axi ci kaw waxaale wu mbokkam ma wa daalika loole idaara kanaa mooy ba ñu jàngantee ci wax wa taqaarabaa te jegante ci jëf laa fi awali tasaawumi du ci njëlbéenu waxaale wa yonent bi dafa aay woon sa mbokkum jullit di waxaale nga ñëw itam ànd ak moom di waxaale te dañoo bëgg rek bu dee waxaale nga bàyyi ko ba xam dana wéyam duwee waaye nag ba ñu aay loolu mooy mu dem ba sori ci waxaale wa nga xam ne moom benn juboo rek mbaa ñàkk a juboo da ko affaire tàmbalee làmb ko wax yooyu itam sañ nga asi tàmbalee làmb ko wax waaye nag da nga waxaale wa sori na moom faaw da ngay bàyyi ba xam buñ déggoowut nag yow nga door a waxaale wal bay xu jaay ga yan xaqidu dana fasoo bil kalaami ci wax ja wa in lam yaftariq ak doonte teqalikoowut al mutabaayixaani ñaari way jaayante maanaam ñaari mu kàlla fi moom bu wàqantee ci njëg ba juboo rek njaay mi fasu na li fi teg nag ne donte teqali ko ñu hadis mo hadis mom da waxal ne ñaari way jaay tay kat ñi ngi ci tànn li fek teqali ko ñu mel ni kon li fek yi ñaar teqali ko leen kum ci neex rek génn ci jaayante ma waaye mali moom déggu ko noonu daa jàpp ne li fek teqali ko ñu ci wax rek la jublu bu xasi wax bo wax ja bu xasi wax bo xam déggoo rek mali moom daa jàpp ne booba njaay ma fasuna jëm yu ñàkk taqali ko jóge fañ doon waxaale du ca dara ba tax ba dee ci yoonu Malik moom ñaari mu kàllafi bu waxante ba déggoo rek njaay ma fasuna gannaaw ba bu kenn ko bëggee bàyyi ne man jaayatuma ba jëndatuma day aajoo morom ma nangoo ko loola lépp loo xam ne rek kii jaay kii jënd jëflante na ko ba mu wane ne ku ne xolam sedd na rek dal nay doy ne ki jokkalante rek nga ñëw mu xam ne nangam ngay jënd yow it xam nga ne li ngay jënd nangam lay jar nga jekki-jekki jël njëkk teg ci loxo mu jekki-jekki teg la nga doon jënd ci sa loxo loolu baax na ba tey nga ñëw mu lay xool mu teg almet yi ci kaw compte comptoir bi nga xam ne almet juróomi dërëm lay jar nga teg juróomi dërëm ci kanamam mbaa ci loxoom jekki-jekki teg almet te kenn waxul benn baatit du tee rek jaay ma aw naw yoon kon ñaari mu kàllaf yi nu ñu waxante mbaa ñu jëflante ko rek ba mu wane ne ku ne xolam sedd na ci nañu jaayante rek ak nañu jëndante dal nay baax wal ijaaratu yooloo nga wax yooloo rek waaye mooy lëggeeloo nit fay ko jaisat aji dagan la isa darabaa ndeem sadd nañu mooy ndeem ràññeel nañu laxaañeel ko ajalan ab ab ba sàmmayaate ñu tudd ak tamana njëgg nangu nañ nga juboonteeg nit mu defal la nangam nga fay ko waaye dañu ràññeel la nga xam ne moom nga bëgg ku la ko defal ñu ràññeel itam fay ga nga xam ne moom lañ koy fay ba lépp leer loolu ñuy tuddee ijaaratu def loo nit fay ko lu am solo la ci kay def lu ak ka muy def loo ñoom ñëpp seen njariñ la waaye nag dañuy sart lam ko war a fayee bu mu ko acc rek ci li nga may defal mel ne mu yoroon ko oto wala watiir wala sareet wala xeet yooyu te pay nga mu koy pay mu aj ko rek ci la muy andi mu bàyyi koo ca oto ba ba watiir ba ba sareet ba déedéet moom daal lam koy warlul war ko ko fay moom duñ ko acci oto ba ba loolee muy dawal ba bayal su bay ma ñoree nga am ca nangam déedéet loolu dañ koy bañ te xamuñu dana ko ji sax ba nga mu bañ a sax wala mu ji di bay di sonn di sonn mu far maral dee awul demee noonu dañuy sart li ñu sart ci la ñuy jaay mbaa la ñuy jënd muy lu wóor a wóor loolu la ñuy sart itam ci la ñuy fayee ka nga xam ne moom ngay liggéeyloo di ko fay ba tey moo tax ñu aaye yorloo nit ganaar wala ak jur lépp luy jur rek nga yorloo ko ko ba noppi sartanteeg moom ne ko pay gi kat mi ngi takku ci la muy jur kenn du ko nangu te xamuñu sax dana ko yor juróomi at mu jekki-jekki deem déet te du jur lu mel noonu kenn xalaatu ko soo ko yorloo xar mbaa bëy mbaa yi demee noonu mbaa ganaar sax mbaa ganaara da ngeen di juboo ci mu yoral la ko te nga fay ko nangam ñu xam ko muy lu wér te kenn du ko takk ci ganaar ga mbaa xarma mbaa loolee mu lay yoral ay benn benn rek la yoon nangu mu defal la ko ba noppi nag la nga koy fayee di bàyyi ko ci loolee mu lay defal niki xiraab xiraab mooy nga jox ko capital mu cay commerce sa te bénéfice ba rek calab añam di génne waaw la ngeen di juboo daal ci bénéfice ba mu am ko ca loola mooy payam xam nga loolu mën naa am sax nga jox capital ba ñu sàcc ko mbaa mu réer mën na ko yorit di ca sonn dir bu yàgg yàgg di jaay ak jënd ba noppi far perte waaye nag loola yoon moo ca def ak jàppandal ñu sañ koo def ba tey ku amee garab yi meññ yoon dana nangu mu jox ko ku koy toppatoo nga suuxata nga nemmiku buñ ca àggee mu am nangam ca meññet ma ba tey loolu yoon moo ko maye waaye lépp lu bokkut ak benn benn yooyu nga xam ne yoon moo ko maye daal duñ duñu nangu la koy fayee nga aj ko rek ci la mu lay liggéeyal déedéet ba tey sax jamono ñu tolloo ci bay nga jox ko jiwu def ko ñaari xaaj mu moom genn wàll ga te bayal la ga ca des dañuy sart ne genn wàll ga moom moom nga ko faye moo ko moom wér-wér bu ko neexee bay ko bu ko neexee jaay ko bu ko neexee def ko neneen te it la cay bon mooy moom moo lay jox suuf suuf sam lay jiyal loolee nga ko jox moom suufam lay doon it mbaa moo koy wut daal ba am ko loolaa koy yàq loolu nag xëy na bu doon suñ jamono ji nga xam ne léegi suuf moom yomb na xam ne daanaka kenn du ca am benn coono ci am foo ji jiw wa xëy na kon yoon dana ko soppi maanaam maye rek koo ko joxe suuf sa dem bañ a wàññi dara waaye nag boo dënkoo ci ni yoon tërali daal moom bu koo ko joxe suuf sa rek loolaa ko yàq soo bëggee jël ab surga itam niñ koy aadoo defee ci tool yi da ngeen di jugoo ci nga jox ko nangam muy bayub lam lay liggéeyal ca tool ya bu dee gerte baax na bu dee leneen baax na waaye loola moom mooy ak payam te bu ci jotee bu ko neexee jaay ko nu ko neex la koy def yow daal lam la ameel mooy bayal la rek diir bam la war a bayal ba àgg ci fa war a àgg yem ca ba tey nag mën ngeen a juboo ci bu nawee toolaa bayal ba fa fa mbay ma war a yem nga fay ko nangam ci xaalis mbaa nangam ci leneen lu bokkut ak xaalis loola sax mel na ne moo gën a wóor ndax bu ngeen juboo ci nga jox ko aw jiwu nga jox ko jiwu ba noppi nag jiwu ko xanaa def ko neneen boo tuut bu nekkul ku maandu du fa toog ba bayal la ba fa mbay ma war a yem wala yu tëra bu deeful sadd fil joxli ci joxal ajalun ab ab fi raddi aabixin ci delloo si jaam bu daw aw baayin wala gëleem charidin gudi aji dàngang aw xafay biirin wala gas ab teen aw bayxi tawbin wala jaay malaan wana wi ak lu mel ne moom wala cheyte di dara dafa di ko ñeel illa bi tamaamil xamali dara ci matuk jëf ja dañ koy wax al joxlu al joxlu wala fi firiwuñ ko dara waaye ab neexal la xaw nuru mooy nga di ko def loolu loo xam ne mën naa sotti mën naa bañ a sotti te itam nag bu yàlla dogalee mu sonn ca sottiwut it yow ma ko moom dina amal benn njëriñ lu mel noonu nga juboo nag ci ne ko bu sottee daal juboo nañ ci ma jox la nangam bu fekkee sottiwul nag amee lu ma la dara nga dem ma dem loolu nangu nañ ko moo tudd al joxlu waaye dañuy sart nag doo ko wax ne ko li fekk sàngam mooy doo ràññeel benn dele ne ko li fekk dele sàngam bu fi sottee nga am nangam bu fi sottiwut doo am dara niki la nga réerle bu dee jamono yooyu ab jaam mën na koo doon bu dee léegi si mën naa nekk aw fas mbaa leneen nga ne ko soo bu ko waralee ba mu feeñ day juboo nañ ci juboo naa ci jox la nangam moom itam loola xolam sedd ja mu ne ay ca bismillah bu fekkee néewoo ko li fekk ay bis bu feeñee néewoo ko li fekk suba mbaa gannaaw suba néewoo ko li fekk weer wi dee da nga ko bàyyi rek moom mooy wëri su wëree wër nag te loolu feeñut mu xam loolu la yàlla dogal mu ñàkk bu loola feeñee nga fay ko la ngeen waxante woon loola baax na gëléem ko teg jëwam dem mën ngeen caa jëflante ci lu mel noonu gas ab teen mën nga ko ne gasal ma teen bi su bënnee day ma fay la nangam maanaam ma neexale la nangam su bënnul nag nga dem ma dem lu mel ne teen bi nag moom bu ca gasee ba yàgg mu jekki-jekki bàyyi ndax amu ci yaakaar gannaaw ba bu keneen ñëwee àggali gas ba far teen bu bënn danañ seet li war a fay ku njëkk ga ñu fay ko ko ba tey daañu nag nga ne ko jaayal ma tiise bi mbaa leneen li su jaree rek maa la warlu nangam jox la nangam waaye doo ko wax ne ko bu jaree tey ci gaawu bi wala tey ci alxames yi pekkees ci déedéet moom daal duñ ko sàkkal benn ab day wéy ca noonu rek di jaay di jaay mu wóor ko ne amatu ci yaakaar ci jarga mu ñëw delloo la ko xam ne loolu la ci yàlla dogal waaye doo ko sàkkal nag benn délai wal ajiiru bàjj ba nag bàjj mooy employé xal bay ci jaay ga ida tam ne mat na al ajalu àpp ba wala mu yabi te jaayul dara it wajaba kon war maanaam kon sax la xoo ñeel ko jamihu ajri mboolem pay ga wa in baax ndem jaay na it fii nisful ajali ci genn wàllu àpp ba fa la xoo kon ñeel na ko nisful ijaarati genn wàllu yooloo ga boo jubóog nit ci mu di la jaayal ci boutique mbaa leneen nga di ko fay par weer mbaa par at mbaa lu demee noonu bu fekkee ne moom def na waru garam toog di wane la ñuy jaay ak a waxaale rek su dat ba matee rek faaw nga war koo fay doon fi sax li ñuy wax soqiku defu ko mooy jaayul dara dara ndax tey ma jaay ma nees na ko waaye tey ma jaral moom ci yàlla la nekk su fekkee dat ba ngeen waxoon dafa dem ba xaajale ko ngeen yem foofa itam kon la nga ko war na fay lépp lépp buñ ko xaajee ci digg ba nga fay ko booba xaaj ki bu ngeen juboo par weer wu ne nga fay ko ñetti junni bu jaayee ba weer wi dee faaw nga war koo fay ñetti junni donte lam doon jaay jarut bu fekkee ne dafa jaay genn wàllu weer nga war koo fay junni juróomi téeméer wal kiraaw luye wala luyaas kal bay mi ngi mel ne ki jaay fiimaa ci la nga xam ne yaa xillu nana dagan wa yaxaruma ak lay araam luyaas mooy lu mel ne luye kër wala luye oto wala luye leneen loolu neen dañ koy atte atte jaay lañ sartoon ci jaay ci njëgg ak la ñuy jaay lépp ñu war koo xam ràññiku luyaas bi itam noonu lay mel dañuy xam lañuy fay ci luyaas ba xam lañuy luye lum doon te itam luy sartoon ci jaay rek ci loolu nekk lu laab nekk luñ mën a jariñoo nekk loo xam ne bu ñu waxee ba juboo kooku mën koo jébbale ak nañ aaye woon ci nga xam ne bu mu nekk lu ñu tere nit ab xaj dañoo aaye woon ku ko jaay kon aaye danañ aaye kon ku ko luye wala boog luyaas jëm ci délai bu ñu umpale ak yëpp rek moom daal lépp loo xamoon mu ngi bokk ci sartu njaay rek xam nañ koy sartu ci wàllu luyaas nañu seetlu nag ne doo sañ a luye kenn fu muy moye yàlla mel ne kuy jaay sàngara mbaa dara dara lu yàlla aaye doo ko sañ a luye fa mu koy jaayee doo ko sañ a luye itam oto ba mu koy jëlee ji mbaa lu ni mel ci takk-takk daal moom lépp lu yàlla aaye muy lu araam rek doo sañ a luye kenn lu ko cay dimbale ba mën a def lu araam loolee bu dee ñi ubbi salon yi nga xam ne dañ ci defar bopp yi lu mel noonu doo sañ a luye kenn fa mu koy defee ak mboolem rek lu ñu def lu aay daal moom ci gàttal doo sañ a luye kenn fa mu koy defee mbaa luye ko lam koy transporter ak mboolem yi demee noonu. wa malik tara koo xam ne luye na daab batan daaba bi ay niha ci jëmmam ilaa balad jëm ci ab dëkk fa maatat te mu dee in fa sax kon firikun alkila aw luyaas ba fii maa ca la nga xam ne baqee des na. ne boo luyee jëmmi daaba sàngam ràññeel ko wala jëmmi oto sàngam mbaa benn warukaay daal nga ràññeel ko ne ko bii nga may luyee ma dem ci béréb sàngam su ne ba ci yoon wa bu dee daaba jëm mu dee wala bu dee oto ba mbaa leen mu paan kon dañu yemale foofa na ngeen waxante woon dañ seet la nga ko war a fay rek nga fay ko ko ndax ràññeel nga ràññeeloon daaba ja wala oto ba mbaa leneen loolee daañu wax nag bu fekkee ràññeeloo woon daaba ja mbaa oto ba da nga ko ne woon rek luyee ma daaba mbaa luyee ma oto ba yu demee noonu wa kazalika naka noonu al ajiru bàjj ba yamootu mbir moom dafa faatu bàjj nee naa woon mooy employé ki nga jël di ko liggéeyloo bu liggéey ba yàgg mu faatu dañ yemale foofu rek liggéey ba seet na mu weesu ñu fay ko ay mbokkam te ñam foofa wa daaru ak kër ga tan xadimu mbir moom dafa màbb xabla tamaami muddatil kiraa yi ci njëkk ma tug diirub luyaas ba ba tey bu fekkee kër gi lañ ko luye woon nekk ca ba yàgg laata diirub luyaas bay jeex far kër ga lakk mbaamu màbb daanu koy dañu seer rek ka fa luye woon lam jotu dëkk mu fay lu toll noonu waaye kenn du ko mën a mottali ci beneen kër ngir mu fay lépp lépp déedéet day ñamale foofu lu yaas ba rek wala ba as ayut bi taalimil muallimi ci jàngale ak aji jàngale ja alquran alquran xalal xisaaxi ca sart ñaw ga wa musharatati tabibi ak chartanteeg docteur ba xalal buru i ca wér ga ba tey nangu nañ ki mën a jàngale nga jubóog moom ci mu jàngal la mbaa mu jàngalal la keneen ba ci tolluwaay sàngam nga fay ko nàngam nees naa jubóo ci fer i ji nees naa jubóo ci mokkal nàngam wala mokkal léppi alquran luñ ca jubóo rek baax na ñu seetlu ne li mu wax ne ayut li muy tekki mooy dagan na waaye nag jàppal ne wut ku la jàng nga fay ko ba wut ku la jàngaleel nga fay ko day dem ba soppiku waru gar ndax la nga war a xam bu fekkee mën laa am ku la ko xamal ngir yàlla faaw nga war a fay ku la ko xamal koo xam ne itam war nga koo xamal mbirum diineem ni ki sa doom wala sa soxna su fekkee ne gisoo ku la ko xamalal ngir yàlla kuy fayu rek nga gis faaw nga war a fay kooka mu xamalal la kookee ndax loolu day sa waru garab te mënoo koo ñàkk def moom mi nga xamee ne nag moom la ñuy fay muy jàngale nee nañu wërta yam ci jàngale ga kese war na cee boole yar ba ni ki taxawu gone ya bu baax ci ñuy bañ a wax lu ñaaw bañ a def lu aay ni ki sàcc mbaa fen mbaa dara lu koy nuru te it kum ca war a yar rek mu yar la ku nekk na koy seet nam ko yare am na ci ñoo xam ne bu leen waxee rek xëy na mu doy am na ci ñoo xam ne faaw mu caw leen su caw nga mënta ñàkk caw mooy dóor na def dóor yam yoo xam ne du àgg ci ñaawal dara ca deru yaram wa rawante na di luy nuru damm benn yax ci ay yaxam loolu ëpp naa def da yàq njàng ma ba noppi indi ay jafe-jafe yu bare bare bare bare yu yàlla rek xam fa mën a yem te it moom mi nga xam ne moom la ñuy fay mu war a jàngale bu sañawoo keneen ca ñamuy jàngal di ko féetale lenn njàngale ma ni ki muy wutte gone ya ñoo xam ne la mu war a def moom ci boppam ñoo ko koy defal déedéet moom ci boppam moo war a jàngal ñëpp ndax daanaka gone mënta jàngal moroom ma ndax xam rek daa taxut nga mën a jàngale daa am loo xam ne magum jëmm moo ko man waaye gone moom bu xamee nii kese itam du tax mu mën a jàngalee noonu kon nag na moytu rek daal di fab lenn ci ñoom war a jàngal féetale ko ñenn ca gone ñu leen di jàngal moom mel ne ku ca génne loxoom wala sañu ko te it ndegam dañ koy fay ci njàngale mi du sañ a nangu addiyee kenn ca waajur yi gone ya wala ak yooyu gone seen bopp ki du sañ a laajati àllarba mbaa lu koy nuru ba tey it du sañ a liggéeyloo kenn ci gone yi ndegam dañ koy fay rek moom du ca sañ a liggéeyloo kenn du ca sañ a yalwaanloo kenn du sañ a yebal gone itam ñu dem di wàcc ji ci béréb alxuraan di leen cee jox alal bindikee jox ko ko yooyu yëpp du ko sañ nee nañu sax bu defee dara ci loolu matatul seere matatul ilimaan teewul nag sañ naa liggéeyloo gone ya liggéey boo xam ne bu ñàkk solo la te ak gis na ko liggéeyloo koy jàngal ni ki buub foofee ñuy jàngi ba muy set ak yónni ko rek am soxla yónni ko jàng yu demee noonu moom wàññiwul dara ba tey nee nañu daa war a yemale mboolem ñamuy jàngal ci wàllu njàngale ma ak ci wàllu yar ba bu mu ci gënal kenn ci kaw kenn ndax ñoom ñëpp ay fay kon waru caa gënal kenn ci kaw kenn ci wàllu njàngale ma mbaa ca dara dañoo bëgg itam mu leen di bàyyi ñi noppalu ci ay jamono ndax bu ñu saxoo rek njàng ma saa yu nekk seen xel day mujj naqari ñu dàcc nañuy jàng ko noppalu jàng ko noppalu jàng ko noppalu rawante na nag bu ñu tolloo ci bisu xiit ak yu demee noonu moom da leen may ñu noppalu ndax seen xel del siwaat bu baax a baax moo tax liñ koy defee di bër ci gannaaw korite ak gannaaw tabaski lu mel noonu taamu nañ ko rawante na nag di noppalu alxamisu ajjuma moom lu ñu war a farlu bu baax a baax la ndax waxoon nañ ci njëlbeenu téere ba cosaanul noppalu alxames ak ajjuma xanaa ñu dellu ko baamuwaat ndax ñu jàpp ko bu baax omar ibnul xataab mi nga xam ne moo gën ci xeetu yonante bi gannaaw abu bakar radiyallahu moo njëkk a boole ay gone digal ku ñu wax xaamir ibnu abdillah alxusaaxiyu mu leen di jàngal mu warlu nag la ca war di ko ko jox ci bayti maal ngir gàttal nag ba omar demee di ubbi ci cham da caa xaw a yàgg am fa weer ba mu ñibbisi nag fekk waa madina namm ko lool mag ñeggoon nañ ñëpp wëlbatiku di ko teeru ji te sori nag ca